tay mom da di bés euh, bo xamantene ne bu bu agent dul faté ci carrière am la bés bi ngay dor bi ngay retraité mën nañu wax mais bi ngay dor itam day marqué sa vie professionnelle mom nak lañ doon fété tay muy génn fi ci école de formation bi élève inspecteur quatrième promotion yi promotion bi ak élève contrôleur agent administratif ak surveillante et surveillant de prison de la 5e promotion ñom ñëpp boko ko xayma 90 12 lañu tollu ci 92 heures yu ñu am ñaar inspecteur un euh, contrôleur un ak agent administratif li des yëpp nekk ay surveillant ak surveillant de prix euh, ci tàggat bi ñu leen doon tàggat fii ci école bi lu ci bari def na euh, théorie la gën pratique même si ci biir seen formation ils ont eu à faire des stages de découverte des stages de mise en situation socio-professionnelle mais it ñaaxaat nañ leen ndax ñun suñu liggéey liggéey ci ci ci doomu aadama la vraiment ñu fexé ba suñu mission muy mission administration pénitentiaire du sécuriser sécurité ak préparation à la réinsertion sociale ñu lu ci Ben, nit ñi nga xamantene mom lañ ñu yoon di di dénkaane ñu téye leen te am ci ay nekkin yu rafet ndax buñu ñu mëna déma a ci société bi ba paré dignement euh, ba paré ci biir euh, kasso yi ñu jéma respecter sen yalef ak sen àq ndax buñu ñu dal ni ñu duggé won ñu génnee non